jërë ngeen jëf euh, mbokk yi euh, yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 seen émission pencum réew mi comme ni nga xam ne moom lañ ko baaxoo di ànd ak yéen samedi bu jot euh, bu 15h jotee jàpp 16h Abdou Khadre moo nekk ci micro bi Mamadou Diawa Diallo moo nekk ci wàllu technique bi mbokk yi ginnaaw bi ñu leen nuyee ba pare tey nag dañoo dellu am mbégte fa yéene seq waxtaanu yaatu ak Alioune Djiba mu nekk ci parti bi di PDS nekk membre ci cadre boobule parti. Euh, bokk ci secrétariat exécutif euh, national bu PDS euh, nekk responsable ci boobule parti ci Golfe Sud. ba pare tamit nekk secrétaire national des réseaux sociaux et communication interne du PDS. moom la ñu invité tey fas yéene waxtaan ak moom ci ponk yu bari euh, Alioune Djiba Rewmi FM a ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay euh, Abdou Khadre xamuma la mais ñu ngi doog a gisante mais bi nga ma wooyee ba léegi ku baax nga macha allah parce que li ma daan waxtaan ak yow rek xam naa ni taalibe nga et puis macha allah. donc di nuyu également suñu secteur général national maître Abdoulaye Wade di nuyu suñu candidat Karim Meïssa Wade di nuyu tous les responsables du parti démocratique sénégalais muy militantes et militants et également toutes les sections yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal ak ci bitim réew. di nuyu waa jaspora yëpp yi nga xam ne ñu ngi liggéey également liggéey bu am solo ci mbirum parti démocratique sénégalais avec le secrétariat des réseaux sociaux et communication bi nga xam ne suñu sœur fi Diallo moo ko jiite. di ko nuyu également bu baax. Euh, Aline Djiba ndax mën nga ñëwaat ci présentation bi nga xamante ni def naa ko euh, ngir mu gën a leer ci ñi nga xamante ni ñoo ñuy déglu. exactement euh, Aliou Djiba il est membre du parti démocratique sénégalais def naa loolu mooy présentation bu gën a bu gën a large parce que ku nekk membre mooy militant nekk également euh, membre du secrétaire nationale de la des réseaux et communication élargis mu nekk également membre de la FNCL nekk secteur administratif du parti dans la section de Golf Sud nekk également président du mouvement Demba Jeex ak Karim mais tey ñëwalu ma fii pour sama mouvement mais dama fi ñëwal pour parti bi parce que je suis dans le parti et instance yi gën a mag si parti bi si laa ne donc euh, li may porte fii c'est la voix du parti donc euh, du sama voix. d'accord euh, kàddu gi nga daanelee sànq fi la ñuy commencé waxtaan bi muy instance su parti PDS. Hmm. est-ce que PDS instance yi ma ngi doxee wala ma ngi fonctionner comme ni nga xam ne moom la doon fonctionner bu njëkk. waaw PDS mi ngi fonctionner comme lu mu war a fonctionner PDS mësula jéggi fonctionnement bi. bi mu war a def euh, li tax ñu xaw a am tuuti un arrêt ci activité du parti démocratique sénégalais suñu delluwee ci gannaaw tuuti dafa am li xew ci suñu dëkk muy Covid 19 Abdoulaye Wade autoconfiné toutes les activités du parti ne waruñu def benn rassemblement ni permanence ni fap boo xam ne war nañ fa mën a mën a def dajaloo parce que parti bi pare woon na à l'époque pour dem tourner au niveau national pour la vente des carte mais bu lii ñëwee Ablaye Wade s'est autoconfiné très tôt toutes les activités yi nga xam ne moom la ñu war a def ñun ñëpp ñu bàyyi suñuy activité ñu toog euh, li nga xam ne mooy activités politique mënuñu ko def parce que on a soutenu le président Macky Sall dans sa politique surtout sur la loi d'habilitation bi nga xam ne euh, moom la teg parce que avance cela. moom amul lu ngeen rëccu ci loi d'habilitation boobu. Euh, non ñun amuñu luñ si rëccu. très sincèrement parce que dama jàpp ni bu dëkk nekkee si guerre ñun ñëpp dañu war a soutenir suñu réew ñun ay citoyens lañu te suñu président de la république institution la donc su amee li nga xam ne euh, moo laal suñu dëkk ñun ñëpp dañu war a taxaw jàppale ko xeex li nga xam ne mooy Covid bi te Ablaye Wade defe naa en bon responsable loolu la jël. mu ne ñun ñëpp nañu jàppale président Macky Sall Karim Meïssa Wade si boppam nee na nañ ko jàppale d' ailleurs dinañ si ñëw parce que am na action bu mu def en donnant des tests n'est-ce pas des kits yi nga xam ne euh, au ministère de la santé. pour Karim wala PDS wala parti bi. Euh, Karim au nom du parti démocratique sénégalais la ko joxe. Mhm. pour kii di parti bi. non Karim c' le candidat du parti. Karim bu jëlee alalom mu lépp lu muy def rek si biir partie bi mi ngi mel ni. Euh, Karim du PDS. waaw mais Karim est dans le PDS. Karim ah. le secrétaire chargé de la des stratégies n'est-ce pas au sein du Parti démocratique sénégalais tey. mais li mu def yow ma mënoon nga def lu mel noonu Golf euh, parce que Karim aussi il faut le dire c'est un militant du Parti démocratique sénégalais. daf ko def en tant que militant. waaw su su ko defee. Uh-huh. su ko defee il le fait en tant que. Euh, comment dirais-je militant certes, uh-huh. mais il le fait également en tant que responsable politique dans le parti démocratique sénégalais PDS lan la def ci Covid bi. Euh, Pérez comme li ma la wax Karim am na li mu def def na lu rëy li mu def noonu il l'a fait au nom du parti démocratique sénégalais parce que boo xoolee keroog bi ñu daan dem ñan ñoo ko yóbbu c'est Mayoro Faye qui a porté la voix du parti waxul Karim dafa ne au nom du parti démocratique sénégalais soo déglulee discours bi sax c'est le discours du parti il a porté la voix du parti moom Mayoro Faye te ce jour-là tout le monde était content que on se Karim dañu woon du sénégalais mais Karim won na leen ni tey moom sénégalais pur et bon la te baayam nekk murid sadiq te ñëpp xam ko. mais mais Djiba yéen lu tax euh, lu Karim Wade def en tant que militant ngeen bëgg ko yëkkati wala lu parti bi def ngeen bëgg ko moomale Karim Wade. Euh, waaw c'est-à-dire que Karim moo lëmbee jamono. tey parti démocratique sénégalais gisuma kenn ki nga xam ne mën na am aura boobu ak euh, nu mu tudd ak célébrité boobu. euh, sinon que Karim moo ko am parce que Karim n'oublie pas en 2009 bu muy def élection ñëpp dafa xoolal pourcentage bu mu amoon mais en 2012 comme ni ñu koy waxee rek sama benn sœur muy Nafi mu ne Karim euh, Macky Sall est le directeur de campagne de Karim Meïssa Wade effectivement parce que moom moo tax Karim siw avec le fameux la fameuse CREI uh-huh. donc bu mu ko defee ba Karim siw mais tey c'est pas c'est c'est pas la faute à Karim parce que Karim c'est pas lui qui s'est porté volontaire mu ne man maa bëgg a nekk candidat du parti démocratique sénégalais c'est les instances du parti ñoom ñoo toog au niveau de la permanence ñu def un congrès votel Karim ñu ne Karim moo nekk suñ ko pourtant amoon na yeneen candidats yi nga xamoon yi nga xamoon ni bokkoon nañu ci jogante bi mais dañoo mujjee perte. mais Aliou avant euh, loolu Karim Wade di joxe. Mhm. Euh, ñu koy rafetlu comme ni ko Sénégalais yi bëree bëri di rafetloo. Mhm. di rafetlu tamit euh, leneen loo xamante ni Sénégalais yi contribué nañ ko ndax kenn ku nekk jàpp na ci. Mhm. mais avant loolu. PDS euh, ndax amaloon na ay activité ay sensibilisation joxe ay euh, ay sel hydro euh, hydro hydrocal hydroalcoolique ay masque ndax lu mel noonu taxawaay boobu noonu ndax PDS def na ko ci mbas mi. mais si PDS def na ko si mbas bi PDS def na ko jox naa xam nga bu ma la joxee kariwaat mooy bu gën a rëy bi parce que n'oublie benn test si li mu joxee. Euh, suñ ko xaymay ak test gouvernement bi ça fait benn bu ne cinquante mille francs cinquante millions la mais soo ko multiplier ça te fait combien deux cent cinquante euh, je pense deux cent cinquante millions donc donc ça veut dire que euh, Karim am na lu bëre li nga xam ne def na ko si mbir mi parce que su ko defee c'est l'a fait au nom du parti mais def ko au nom de lui même s'il le fait à son nom mais au nom du parti parce que Karim porte n'est-ce pas la candidature du parti démocrate parce que mu ngi mel ni nga ne euh, doo lekk yàpp mbaam mais quand dinga lekk sauce bi mais loolu ça c'est impossible d'accord mais Aliou euh, Djiba yéen da ngeen a bokk ci ñi nga xamante ni jàppale ngeen président Macky Sall ci mm-hmm. loi d'habilitation bi mm-hmm. ci assemblée nationale mm-hmm. ngir waral jéego yi. Mhm. mais gis nañ ne euh, am na lu fi eh, am ndax euh, lu jëm ci wàllum jënd dund gi. Mhm. Mansour Faye tuumaal nañ ko fi ci ay marché yoo xamante ni euh, ñenn ñi nee nañ am na ay ay léexóor yu si am. Mhm. ay labaj ci marché ni mu jëndee ceeb beeg transport bi. ak séddale gi tamit yeexaay bi nga xamante ni tey nemmeeku nañ ko si. yéen lan moo tax ñu leen ñu wax ngeen wax ci loolu. xam nga pour expliquer brièvement si mbir mi. parce que bu Ablaye Wade génnee euh, communiqué boobu noonu ne nañu bàyyi rassemblement yi bàyyi euh, nu mu tudd euh, activité politique yi li nga xam ne moom lañ si jàngat incompréhension lañ si amoon après parce que c'est après la ñu rendre compte ni y avait une incompréhension du message bi nga xam ne moom la Ablaye wat joxe loolu moo taxoon après à un moment donné te problème bi mi ngi amoon deux mois avant Covid bi yaa ngi gis ñoom Omar Sarr bu ñu nommé suñu secrétariat Euh, nationale lu ñu def dañoo gën ne ñoom dañoo dañoo gedd parti bi ñu dem créer seen mouvement yi si diggante boobu mu amoon ay responsables yi nga xam ne ñu ngi daan dox li nga xam ne si biir pour jéem a parce que dañu ne comme dañoo frustré xëy na ils vont revenir en de meilleurs sentiments si seen seen yi dinañ ko bàyyi ñu mën a dellu si si parti bi mais si diggante boobu troisième mois bi si la Covid bi ñëw alors bu Covid bi ñëwee donc euh, ñu autoconfiné suñuy activité parti bi taxaw alors mais teewul euh, à un moment donné après gars yi commencé dem ci débat bi parce que bu ñu comprendre le message de Watt nee na rassemblement activité mais waxul yu demee ni donc moo tax suñu cadre yi gën ku nekk di demee débat di di discuter man mii dem naa plusieurs fois dans certaines chaînes de télévision. Mhm. pour ma def ci débat pour waxtaan ci li nga xam ne moom mooy Covid bi ak. scandale yi nga xam ne moom nga cité nii bu Mansour Faye regretté wuñu si dara. mais officiellement lu wax PDS bindu ci génn ci communiqué. waaw euh, officiellement PDS bindu si communiqué mais quand même PDS euh, Baara Gaye Baara kii nu mu tudd Baara Serigne Baara euh, Doli Serigne Baara Doli am na lu mu avertir mais jour assemblée nationale nee du ñu ànd mukk si li nga xam ne mooy ñaawteef yu guur bi di def. mais d' accord nañu pour jox plein pouvoir président mu mun a dogal pour que rapidité exécution yi mu mun a gaaw mu bañ a nekk fii di delluwaat assemblée di voter ay loi pour mun a doxal li nga xam ne moom mooy wala vote de budget pour wala des lois rectificatives pour mun a doxal mais quand même ñun am noonaa léy euh, sur les actions mooy action yi nga xam ne moom la gouvernement yi def ñu ngi ñu ngi siy bàyyi suñu ñu ngi siy teg suñu bët lépp li nga xam ne def na ko te nga xam ne ñun ànduñu si danañ ko wax danañ ko dénoncer te pourtant euh, wax nañ si quand même parce que am na ñeneen ñi nga xam ñuy dem si plateau yi euh, bëgguma jox yeneen publicité plateau mais euh, yéen a ngi dem ci palato yi mais bi ngeen di jàppale président Macky Sall ci loi d'habilitation bi lu ngeen génn communiqué Euh, Kane da ngeen di jàppale président Macky Sall. exactement d' accord léegi. Euh, exactement li nga xamante ni tey am na ñoo xam ne gis nañ wala njort nañ ne ay scandale am na ci mbir mi. Hmm. beneen bi tamit jekk na jekk nañ gis euh, mesure yoo xamante ni tey. Hmm. yu président Macky Sall jëloon. Hmm. moo xam tëj ay jumaa ak jàkk ak ay frontières ak dem beeg dikk beeg. yu demee noonu. ñenn ñi dem ba nga xam ne bi président Macky Sall waxee nañu dund ak jàngoro ji ñenn ñi dañu jàpp ne tey bu doon nit la ku nekkoon ci guerre. bàyyi na ay armam te guerre bi jeexagul te yéen ba léegi tey seen secretaire général national maître Abdoulaye Wade ñu koy nuyuwaale ba léegi nii ma ngi ci confinement te kon moom xam na ne réalité ba léegi ni ma ngi fi léegi lan moo tax yéen bindu leen communiqué xamal président Macky Sall naka li fi nekkoon démb ak barki démb bañ lay jàppale ci loi d'habilitation beeg yu ni mel ba léegi ma ngi ci réew mi mais da ngeen see noppi. Euh, merci xam nga question bi c'est c'est Eh, du ma ko duma ko bañ parce que comité communiqué bi ngay wax ni lu tax binduñu ko c'est tout à fait normal eh, parce que nee la en temps de guerre ñun ñoo jël suñu ñoo joxee suñu kaddu donc suñuy nekk guerre joxe suñu kàddu du ñu dem ba si biir di ne non dañuy rocceeku pour di wax leneen moo tax si diggante guerre bi on jógoo kenn kenn kenn wax si mais tey da ngay xool cadre yi tey dans sur les plateaux de télévision ku nekk yaa ngi ci rajo yi ñu ngi toog di wax di dénoncer li nga xam ne mooy scandale yu gouvernement bi di def kooku ñun mënuñu si ànd lu mel ni Mansour fay lu mu def si ci aide alimentaire yi. Ah. Euh, jël par exemple benn société bu mel ni bu job si. Ah. Euh, jox ko contrat te caution mi ngi woon en cessation ñu ngi maanaam euh, tribunal réglé woon na problème bi ba ñu ngi woon comment dirais en faillite ba ñu war a jaay seen i seen i kii donc nga ñëw jël ay mbirom reconduire ko. jox ko nga xam ne loolu illégalité la ñun munuñu ko comp ngay jël ay camions yi nga xam ne camion n'importe quoi yu mel ni oto euh, mbalit nga koy jox par exemple di si dugal moom daf ko bañ il a rejeté mais quand même les gens ce ñu nga xam ne moom la nit ñuy gis te moom la nit ñuy constaté mooy loolu donc euh, Mansour Faye euh, li mu def si aide Covid bi dafa nekk lu lu scandale bu bu rëy parce que moom daf ko bañaa ah. te boo xoolee bu baax nu ñu defee distribution aide yi dans les quartiers te les lu gën a garaaw da ngay dem man euh, bu njëkk ba daawuma ko gëm mais dama dem ba si biir ma gis ni am na ay xoo responsable yi nga xam ne ay adjoint maire yi nga xam ne bokk nañu si si si kii bi nu mu tudda euh, comment dirais-je mooy bourse familiale bi ma loolu daf ma daf ma teg mu am ay nit yi nga xam ne ñu ngi liggéey si fonction publique bi te ñu bokk si bourse familiale yi man si laa ko dogg a gis ma ne non mais attends et ce qu'est-ce qui se passe dans ce pays seen bopp ñi nga xam ne ñoo censé apporter n'est-ce li nga xam ne mooy bien euh, le bonheur la population ñoom si seen bopp bu ñu demee tey be ñoom ñu bokk si bourse familiale ça pose problème te bu fa du fanweer ba euh, bu ñu koy bu ñuy joxee ni aide alimentaire yi fan la tombé mi ngi tombé si presque nawet il ils sont presque trois à quatre mois pour la distribution de l'aide alimentaire parce que lan la dafa amoon des manquements non seulement si riz yi mais amoon na aussi manquement si pàcc. mais mais ñaawlu leen ko yéen PDS bindu leen. wax nañ ko cadre yi cadre cadres yi les cadres du parti démocratique sénégalais tu sais PDS dafa am ay instance dafa am instance mhm. euh, euh, non dama ne cadres yi si boppam ñu bëri ñaawlu nañ ko. si plateau yi si plateau yi ñaawlu nañ ko si kii parce que. léegi parce que xam nga xam nga communiquer deux façons mën na nekk trois façons sax. xam nga bu njëkk ba suñu maam yi nu ñu daan communiquer di tëgg ndëdd pour ñu communiquer mën nga communiquer par écrit même le silence bi ngay gis ni communication bu mag la donc communication dafa bëri ay fànn ñun PDS ñun dañoo jàpp ni ñun ñooy cadre yi ñun ñooy relève bi suba donc lu am si actualité nationale war nañu mën a taxaw défendre suñu parti wax li nga xam ne mooy njëriñu askan bi parce que ñun askan bi lañ fi nekk au-delà de ça on n'est pas là pour nous-mêmes mais on est là pour Euh, danañ ci dikkaat ndax vraiment man li nga tontu nii man convaincre ma. Ah, mais d'accord parce que yow li nga bëgg a dëgg moom nga amut te aussi. Euh, nit boo leen bokkul foo leen jëm aussi doo leen mën a juboo c'est ça aussi le problème. d'accord léegi xam nga tey par exemple tey loi d'habilitation dafa nekk loo xamante ni mm. euh, du lu ndaw mm. ngeen bokk si ñi nga xam ne tey jàppale ngeen ci mm. président Macky Sall te PDS ku xam PDS xam ne lu ko ñuur dëgg. balaa ay cadre di dem ci plateau yi dina ci bind communique ci lu baree bare ndax euh, bi ci mujj danañ ci ñëw euh, Abdou Karim Sall ci mbiru kéwal yi nga xamante ni tey jëlee na ko raneeru am yu si dee rek da ngeen bind communiqué kane dañ ko yóbbu euh, dañ ko yóbbu ci yoon tey li nga xamante ni am na ci gestion Covid bi. ma ma ma yokkal la communiqué bi ku ko bind. kan moo ko Mamadou ma voilà mais jeex na. kooku lan la c'est c'est un cadre du parti. Uh-huh. non c'est-à-dire que ñun cadre yi ñun si suñu bopp ñun si suñu bopp on porte la voix du parti tey lépp lu xew Ablaye Wade ne peut rien faire sans consulter les cadres mënul nekk. parce que nous sommes la tête pensante du parti tey soo gisee ñu ne cadre mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo war a toog di xelal parti bi di dégager de pistes de réflexion au parti. moo tax gestion Covid 19 bi nan ngeen ko gisee cadre yi. mais très parce que d' abord pour ma balaa may ñëw si gestion Covid 19 mais loi d' bi lan mooy loi d' habilitation loi d' bi mooy rek ñu jox président plein pouvoir mu mën a décider en notre nom mais sooy décider par exemple en bien comme en mal mais mën na nekk lu baax ko mën na nekk lu bon mais te gis nañu am na scandale yu bëre si loi d' habilitation parce que jox nañ ko ko mais buy doxal par exemple ñu gis ni lii lu muy doxal nii du dëgg baaxut mais duñ ko dénoncer dañ koy dénoncer ba tax tey. on dañuy xaar euh, le bilan on va faire un bilan de ce que Macky Sall a fait et le parti n'est-ce pas se prononcera là-dessus mais bul bul bul jàpp rek ni euh, ñun PDS on est un parti bi nga xam ne bon voilà quoi yóbbaale ma non non non nous sommes un parti responsable un parti de base un parti composé de jeunes et de femmes ñi nga xam ne qui ont des idées pertinentes amener le parti très loolu moo tax tey parti démocratique pour nga gësam ko wala nga yëngal ko du day jafe parce que parti bi fu mu taxaw base bu mu taxaw moo dëgër moo tax Macky Sall quoi que l'on dise il a essayé avec les Omar Sarr parce que même déglu nañu Omar Sarr si discours am bi nga xam ne moom la wax tout récemment Macky sama xarit la mais loolu rek ça montre que moom il était dans notre moment donné pour déstabiliser le parti donc l'ennemi était le camp bu ñu yàlla wone que ñan ñooy genre yi nga xam ne ñoom la ñu nekkoon en face de nous tey ñoom ils sont ridiculisés dans les réseaux sociaux parce que boo xoolee keroog débat ak li mu wax mais ñëpp a ko laminé ci débat yi parce que ça montre que Omar Sarr vraiment euh, triste quand même euh, sama responsable pendant combien de temps ñëpp ñu nekk ci gannaawam mu jékki-jékki rek muy wax lii man vraiment samay am lu may metti ci nit ki parce que Ablaye Wade ne mérite pas ça. a euh, Aline Gueye mi nga xamante ni tey ak euh, maître Amadou Sall ñoo ngi wax ne sax dañuy euh, sos seen seen seen seen parti bopp euh, dinañu ci dikk mbokk ñu fàttali yéen a ngi déglu rajo réew mais FM seen émission pencum réew mi ñoo ngi invité Alioune Djiba mu nekk responsable politique PDS Golf Sud Guédiawaye ba pare bokk ci cadre yi nga xamante ni ñoo nekk ci PDS bokk ci kuréel gi nga xam ne ñoo yor lépp lu jëm ci wàllum xarala yu yees yi maanaam réseaux sociaux mais Aliou gestion bi. Euh, yow en tant que ku bokk ci cadre PDS nan ngeen ko gisee ci ci ci yorin wi ci ci doxalin wi. Euh, gestion Covid 19 bi euh, li ma ko gisee surtout si lépp la parce que dafa dafa yaatu ah si situation la situation économique y la situation scolaire y la situation situation bi dafa bëri quoi mais domaine bi nga xam ne moom laa si gën a jàpp mooy si domaine scolaire. mais dinaa ñëw également si yeneen domaine mooy domaine si partage n'est-ce pas sanitaire ou beneen waaw sanitaire et cetera économique donc li ma jàpp si domaine scolaire c'est très simple euh, le le vingt le le le, le lundi n'est-ce pas 21 mars si la ñu commencé jël su la ñu waroon jël suñuy fet le 16 si la Macky décrété le 17 pour ñu mën a euh, jël suñuy comment dirais-je suñuy vacances scolaires et si la école yi teg pour lan la parce que pour jéem arrêter propagation virus bi parce que virus bi comme ni ko daan waxee du daan dépla du daan déplacé wu moom kese mais nit ki moo koy indi mu ko contact avec nit keneen mu mun a am euh, feebar bi donc loolu moo taxoon ñu tëj école yi bu ñu tëjee école yi on est resté trois mois euh, après trois reprises avortées finalement on a repris les cours tey ñu ngi ci classe yi mais soo xoolee ba conséquence yi bëri na parce que tey élèves yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci classe yi tey ñu ngi toog seen i kër te mënuñu fexe ba mun a def une deuxième composition te bu ñu deful deuxième composition ñu ne dañuy utiliser par exemple euh, mooy système bi nga xam ne mooy permettre élève bi jógee classe bi dem si beneen classe kooku dina nekk injustice parce que dina di nga fekk benn élève bi nga xam ne am na par exemple six de moyenne par exemple deuxième compo mu jéem a lu am quatorze de euh, am naa benn élève bu ma mosoon a yor mais loolu amoon na ko mu dem bi am euh, une très bonne deuxième composition parce que lan la situation peut-être bu muy ñàkk moyenne bi xamoo ban si ban fànn la ko fekk mën na nekk si situation psychologique wala papam divorce ak yaayam wala demee noonu problème yooyu yëpp am booy bi psychologiquement mënul te fexe ba jàng mais deuxième compo mu jéem a def effort ba nekk au rang bi nga xam ne moom la moom la am donc ça pose énormément une question de justice foofu noonu parce que xale boobu mënoon nañ ko may chance en deuxième compo mais léegi nag jàppal ni am na ñeneen ñi nga xam ne ay nañu te deuxième compo mën nañu moyenne ñu passé mais tey ñooñu. dañ leen di redoublé mais ndax waxu leen ci lii. Euh, non si man si wax naa si plusieurs fois wax naa si plusieurs fois et kii dina ma témoigner et parti bi aussi danañ ma témoigner si ay chaînes de télévision may toog di ko di défendre li nga xam ne mooy li ma lay wax nii. wax naa ko wax naa leen nii taw mi dina jafe lool pour ñu jàng te tey euh, l' avenir ma doon raison Ziguinchor tey élèves yi dañuy toog deux jours duñu jàng parce que taw bi day taw te xale yi. fu ñu nekk di jàng day senn wala abri provisoire la xam nga situation yooyu dafa nekk situation yu yu doy waar parce que ministre Serigne Mbaye Thiam bu mu à son époque bu mu nekkoon ministre de l' éducation li mu waxoon dafa ne il faut éradiquer définitivement maanaam euh, abri provisoire yi nga xam ne moom moo nekk si adduna bi si Sénégal bi dañ ko war a euh, génnee complètement mu ne zéro abri provisoire parce que dañoo jàpp ni côté Kédougou Tambacounda et Ziguinchor dëkk yi nga xam ne euh, si côté école dafa soxe parce que soo xoolee nu ñu tabaxee école yi di fa def ay carentin wala ay ñax xam nga ni loolu euh, dina métti lool élèves yi mën si jàng donc si condition yooyu la ñenn di dund tey boori Tambacounda ak boori Kédougou donc de ce fait bu tawee ñooñu dañuy am du mal à travailler te xale yooyu nekk noonu dans les classes pour liggéey si travaux champêtres yi maanaam si si tool ya dina xaw a métti parce que ñoom ñoo nekk seen i bras si si seen waajur donc loolu en grosso modo éducation bi difficulté nekk na fa te tey su difficulté yooyu la ñu nekk. léegi la si mën a jàngatee. wala si mën a jàngatee mooy euh, aujourd'hui l'État à partir de la Covid 19 bi nga xam ne moo am ni léegi nguur bi daf si war a jàngat lu bëri dafa war a xam ni am na yeneen principes yi des principales questions yi nga xam ne moom moo moo moo moo kii euh, moo téye dëkk bi muy l'éducation et la santé daf si war a taxaw. taxaw si naka mooy hôpital yi nga xam ne moom ngay gis nii tey ba tax na ñuy yóbbu suñuy malaat si ay centre yeneen centre yu demee noonu parce que c'est un problème d'infrastructure. mais donc mais état bi ñoo ngi def ay infrastructure ci côté santé. non dama ne fii depuis que. depuis que Macky Sall wax ma ban infrastructure sanitaire la def. mais lan la non dama ne. ban hôpital la fi tabax. dalal jàmm bi Ablaye Wade moo ko tabax. waaw d'accord ah, hôpital de la paix de Ziguinchor Ablaye Wade la moo ko moo ko moo ko moo ko achevé. Mhm. Ah, ak yeneen ak hôpital bu nekk Diamniadio bu ñu yëwu nii actuellement les les les les kii là les ñuy mettre les malades là les quarantaines là mais kooku Ablaye Wade moo ko tabax. donc sur ce côté boobu noonu man gisuma benn hôpital bi nga xam ne mën nga ma duut baaraam nga demee lii Macky Sall moo ko tabax. loolu man gisuma euh, xam nga la euh, PDS ñëw fi rek tabax fi hôpital mu gaa mu gaawee noonu président Macky Sall tey am na programme ci côté euh, santé tey fu mel ni Kaffrine am na fa benn hôpital boo xamante ni euh, plus de vingt milliards boo demoon tey Touba hôpital boo xamante ni hôpital bi plus de quarante milliards hôpital bi travaux yi ñoo ngi ci ak yeneen région yoo xamante ni tey infrastructure yooyu. Euh, bien vrai que eggagul ak mbas mi ni mu bettee mais jéego yooyu euh, peut-être mën nañoo wax ne. mbas bi occasion la pour présent Macky parce que Macky si boppam situation économique bi était chaotique très chaotique parce que tu te rends bu Macky Sall jëlee nguur bi pour la deuxième fois mooy deuxième kii mandat bi mais lan la wax si pré bu muy prêter serment dafa ne ren dëkk bi dina dina il va maanaam dëkk bi dina métti mais dëkk bi day métti. far nag Covid bi ñëw laxasu si donc il a bon dos en ce moment. mais ma ngi woon si infrastructure. non je viens maa ngi ñëw foofu noonu. il a bon dos ça veut dire que économiquement dëkk bi dafa tolloon fi nga xam ne. dafa dafa dafa su dafa metti dafa suuxoon tey ñu ngi wax ay pré xaw ma combien de taux de pour cent donc ça veut dire que ñoom si seen bopp sax ils le retiennent pas mais ça veut dire que dëkk bi metti na donc li ngay wax infrastructure yi ngay wax infrastructure boo koy wax mënoo ko yemale ak président Abdoulaye Wade kooku sax boo koy wax sénégalais yi ñoom seen bopp dañ lay xoolaat parce que suñuy wax infrastructure tey fii si Sénégal ab lay Wade la ah, sëñ bi. no mais bu doon benn hôpital. waaw non damay wax rek non dama damay wax rek man waxuma ni président bu fi ñëw il faut que mu def dara. Uh-huh. c' est mais dama ne gis-gis si ñoodul benn Abdoulaye Wade vision bu mu amoon bi mu am pour réewam ak amour bi mu am ak pas-pas bu mu am ma gisuma ko si président Macky te pourtant Macky il est plus jeune que Abdoulaye Wade et Macky c'est après les indépendances kon <laughs> normalement nar na mun a nekk nit ku xarañ parce qu'il est jeune mais bokkul ak lay wat bokkul ak moom. léegi ban taxawaay la état bu war a amee ci lu jëm ci mbiru wér-gu-yaram ci réew mi. Euh, fondamentalement wér-gu-yaram euh, dafa am solo. tey comme infrastructure yi ngay wax dañ ko war a gën a dañu war a gën a yokk infrastructure yi gën a tabax hôpital yi gën a euh, dimbale éducation bi. éducation bi mooy lan mooy éradiquer comme maanaam essayer ñu éliminer complètement lii nga xam ne mooy abri provisoire yi abri provisoire yi waxoon naa ko sànq euh, ni dafa c'est à 6600 et quelques abri provisoire non dama ne euh, Ablaye Wade jiba Ablaye Wade yéen ko fi bàyyi non Ablaye Wade euh, dinaa la wax man li gën a yàq sama jàng man man mooy le problème que amuñu woon université Ziguinchor ba ma amee sama bac loolu sax ba tey daf may metti dañoo jógee Ziguinchor ñu ñëw fii dakaar après le bac ñëw indi ma université de dakaar nga xam ne kër gu ñu dëkk sama pap par exemple n'a pas les moyens par exemple de faire face à mes études ah si condition yooyu dama daan jógee géejuwaay di dem di jàngi université mais imagine toi léeg damay ñëw sax du ma du ma lekk te booy rang université pour nga lekk problème la loolu yëpp situation bu metti la loolu moo yàq sama jàng sëñ bi mais tey boo ab Ablaye Wade demee tey ba créé université à Ziguinchor man damay dama koy rafetlu parce que sama jarbaat fa la jàng tey bi am maîtrise ñeneen ñu ngi foofu di jàng donc ça veut dire que les universités de proximité plurilimité ça a aidé également Abdoulaye Wade ay ça a aidé également les Sénégalais tey boo xoolee écoles yi ñuy créé tey mooy les écoles de proximité pour nga jege sa école maanaam bañ a jógee fii dem si beneen dëkk ay lycée ay CM mais. mais école. Euh, kenn kenn kenn mënu ko kenn mënu ko compter te Abdoulaye Wade li mu def si enseignement bi. man je suis enseignant li mu def ci enseignement bi kenn mënu ko kenn kenn defu ko ñun bu ñuy nekk volontaire on avait cinquante mille francs boobu maa ngi affecté j'étais affecté à Bakel. ñu bari ne dañ moo yàq njàng mi. non dama ne il a ko multiplié par trois muy cent cinquante mille dama gën àll ba ñëw fekk sama compte bi sakkan ma ne non Ablaye Wade du nit parce que macha allah c' est un travailleur man daal en tout cas euh, si présent yëpp yi nga xam ne ñun de Senghor à Diouf et aujourd'hui Macky Sall mais Abdoulaye Wade ñetti ñooñu du seen morom. parce que li mu def si réew mi. gisuma benn président bu ko def malgré que ñoom jéem nañ ko diaboliser malgré que ñoom jéem nañu yàq derom partout dans le monde bi di ak moom bëgg na wéy dafa bëgg def dévolution monarchique loolu sa n'existe que dans la tête de ceux qui pensent à ça. te sinon ay jaxasekat xel lañu parce que Abdoulaye Wade musul toog benn yoon ne man sama doom bi laa bëgg a jël def ko président musu ko def. d'accord léegi euh, Aliou Djiba sànq euh, ñoo ngi wax ci mbiru ñoom Omar Sarr ñoom xalaat nañ dem créer seen parti parti bopp est-ce que loolu euh, mënut a néewal doole wala mu indi ay jafe-jafe euh, ci PDS jamono ji euh, non mënul <laughs> parti le PDS c'est un grand parti. Macky Sall jéem na moom moo ko wax ah. mais ña fa nekk PDS. non dama ne tey ñu fa nekk yow da nga leen parce que man mosoo ma xama mosoo ma xam ma ñëw si sa débat mais et pourtant tey PDS moo tax ñu xam ma. PDS moo tax may dem dans les chaine de télévision tey ñëpp di ma gis ñuy ne kii mooy Aliou Djiba. waaw mais turu parti non non no rek non non non écoute. non dama ne dama yaa ngi fi intellectuellement euh, mën nañu toog ak waxtaan ak moom si côté intellectuel. mais ne muy politiquement muy politiquement parce que tey bu bul fàtte ni Ablaye Wade moo formé ñoom Omar Sarr Ablaye mooy seen bàyyi ñoom ñëpp ah même Macky Sall mii il est resté huit ans avec nous dans le pouvoir. kon tey bu nekkee président am na lu bëri si ñun la ko jàngee te Macky Sall son sa première fonction été bu mu nekkee ak lay Wade si la commencé liggéey donc ñoom Omar Sarr bu leen Ablaye Wade jëlee formé leen jox ko coordination parti bi pendant des années ñoom ñu nekk si biir parti bi ndekete ñoom li ñu nekk di def ñuy gasal kàmb lay wat nekk di allié wu ak Macky mais moom la ñu def parce que barki dëmboo barki dëmb bi muy wax mu ne man Macky sama xarit la. mais kon moom li mu nekkoon yëpp si biir il n'était pas pour Karim malgré lui dafa jàpp ni Karim Wade rek mu ne waaw après tey muy wax âge Ablaye wat ay Macky sama non mais quand même euh, triste xam nga man li ma jàpp si politicien politicien dafa war a am dignité malgré loo mënta doon dëmb yaa ngi woon ak nit da nga war a ànd ak kii la ki nga xam ne moo la defal lu ne nga déñ man mosu pa Ablaye mosuma doxal defal dara man su doon si sama côté professionnel laay wax la ma defal mais si côté dundin bi nii wala kariwat wala nangam kooku parce que conviction laa amee pour man Ablaye Wade lu mu def am na kenn ku mën a porter combat bi muy Karim Meïssa Wade naka la ko mën a combat porté parce que Karim il était le conseiller du président sur les grands chantiers de l'État mu nekk encore le ministre des infrastructures de l'énergie Karim def fi lu kenn deful liggéey yëpp ñëpp tamit moo yàq parti bi waaw mais c'est-à-dire que nit ku ne tu es libre de penser comme tu veux keneen aussi may ko tamit mu pensé ni Karim lii la def man je pense que loolu bu ñu ko defee ku nekk di nga ah, am sa jàmm mais Omar Sarr pour revenir Omar Sarr mais Omar Sarr du ko ñuy nawloo non Omar Sarr dafa yàgg ci PDS yàgg ak Ablaye Wade jege woon Ablaye Wade ku si mel ni euh, Babacar Gueye mm-hmm. euh, maître Amadou Sall mm-hmm. euh, tey ñu mel noonu tey même tey ñu mel noonu tey bu ñu génnee tey ci parti bi PDS est-ce que ndëgër du feeñ ci doxinu parti bi non dama ne xam nga pour wax honnêtement. parti bi la ñu nekkoon waaye comme nit buy dem parce que c'est un grand ensemble. mais ñoom nu ñuy demee noonu la ñeneen tamit di adhéré aussi biir parti bi. mu ngi mel ni nga yéeg si bus soo ñëwee si arrêt day am ñuy wàcc de am ñu yéeg àdduna noonu la demee de. te parti le parti démocratique sénégalais personne ne peut détruire ce parti parce que parti bi fu mu taxaw si baatin la tax te Ablaye wat ku ko xam xam ni lu muy teg pay yu muy teg. ñii du seen morom parce que ñëpp xam nañu Ablaye Wade mooy kan tey suñu waxee politique démocratie tey mais c'est Ablaye Wade tey presse bi tey bu lawee ba tey ñu amee télé am partout les chaînes mais Ablaye Wade la mais bu njëkk ba xam nga ñaata chaîne moo amoon mm-hmm. benn chaîne moo amoon mooy RTS mais Ablaye Wade dafa ñëw mu libéraliser la presse tey nag presse bi leen jaaxle ci ñi gën euh, man awma benn njaaxle si ñoom tey dem nañu ñu former lii moo gënoon sax ñoom ñu gën parce que yàlla sax daf ñu leen woon tey parce mën nga nekk ak nit doo ko mu lay jàmpaaka sa gannaaw doo ko xam. d'accord waaye bu yàlla demee ba génnee leen. nga da ngeen ne alhamdulilah. mais hmm. PDS euh, dañu gisoon ne PDS dafa amoon ay cadres yoo xamante ni tey. ndax en général parti. Hmm. parti euh, euh, kuréel gi nga xamante ni moo ëmb cadre yi. Hmm. ak kuréel gi nga xamante ni moo ëmb ndaw ñi. am na ndëgërlaay bu muy amal bu muy am parti bi day am taxawaay. mais tey PDS. est-ce que taxawaay bu njëkk bi cadre yi amoon. di animer parti bi. di génn. Euh, est-ce que PDS am na cadre yooyu est-ce que tamit ndaw ñi nga xamante ni ñoom la PDS amoon bu mel ni usutel temps yi ko Babacar Gaye di euh, Baara gi di jiite. Mm-hmm. xarañteef boobu noonu ak sawara soosu est-ce que ma ngi ci cadre PDS yi ak euh, ndaw ñi. waaw non c'est-à-dire que li nga wax ni man mënuma ko rafetlu parce que di moment que cadre yi seen bopp kenn kenn mi ngi nii toog ñëw taxaw ak yow di wax ak yow di défendre position partie bi. donc ñi nga xam ne dem en général ñi ma xam si biir parti bi ñu taxawul lañ te ñu xam fu ñu teg seen tànk lañu euh, di dinaa la bett peut-être mais y a des jeunes yi nga xam ne ñu ngi si biir peut-être que xamoo leen mais suñu taxawee fu ñu mënta taxaw rek porte-voix parti bi da ngay xam ne ñii. parti bi formé parce que non dama ne dama ne ak si jëf. ci wax rek ak si jëf parce que tey mobilisation opposition yooyu gis nii yëpp. mais waxuma wax kese dama ne ñun dañuy jëf. parce que mobilisation. opposition bu amee manifestation. xam nga may invité sa rajo bi ngay wax ni yow mën na. non dama ne mais taxaw Golf Sud tey taxaw Golf Sud. waaw xeex. mais si am na taxawal si ñun Golf Sud ñu ngi fay xeex ñu ngi fay taxawal base bu dëgër kii du bàyyi ma fenn sama quartier la bopp tey li ma nekk si quartier bi position bu stratégique waxuma la sa si politique mais si affaire gestion de quartier kooku beneen position la yaa ngi dëgg te pourtant kilifa laa si quartier bi lu am solo nag parce que j'ai fait 23 ans dans ce quartier suñ may porté ba di ma jox benn kilifteef si biir quartier bi c'est parce que dañu jàpp ni sama comportement ak sama jëfin dafa rafet wala soit dañ ma dañ maa si li may def wax dëgg yàlla neex na leen. donc loolu moo tax. Uh-huh. ma wax la ni comportement dafa am solo si biir. Euh, fëppoo kuréel boo mënta doon moo tax Omar Sarr mënul yàgg si parti démocratique sénégalais parce que lii dañ ko nasoon lu yàgg te Boun Abdallah Dionne waxoon na ko ne na ñii dañuy dem tôt ou tard dañuy dem te l' avenir l'a donné raison donc aujourd'hui kon amoon nañu ay nit yi nga xam ne ñu ngi woon si ñun mais li ñu daan gëmloo askan bi mais ñoom au fond d'eux-mêmes gëmuñu ko. d'accord léegi euh, Alioune Djiba yow yaa ngi bokk ci cadre PDS yi bokk euh, ci euh, secrétariat exécutif seen bureau national bi nga nekk responsable politique Golf Sud. danañu ñëw ci li nga xamante ni mooy ki nga wax sànq seen candidat boo xamante ni tey chaque jour suñu candidat suñu candidat xawma candidat la ci lan Karim Wade mais Alioune. bu paasee ñu bari ñoo xamante ne wax nañ yow yàgg nga ko dégg kane Karim wadd bokk na si ñi yàq parti bi ñi am problème góor gi ñëpp ñu si bari wax nañ ne Karim ci la bokk mais tamit dañuy wax comme yow laaj bi li tax ma la koy laaj mooy dafa am benn mouvement euh, boo xam ne moom nga jiite euh, mouvement boobu ànd ak Karim dem ba jeex ñu bari dañuy wax ne Karim dafay favoriser. ñi nga xamante ni tey ay karimiste lañ wala ñoo yor ay mouvement yu koy jàppale loolu bokk na si ñi indi jafe-jafe ci PDS même sax ñenn ñi ñoo wax ne indi na jafe-jafe ci ndaw ñi nekk ci PDS ak UJTL. Euh, bon li ngay wax noonu comme jafe-jafe yi man franchement euh, man ba may dugg si parti démocratique sénégalais si turi sama mouvement laa ñëwee bu ñu demee ba def suñu. suñu mea culpa ñu toog xool ni ñun dañoo war a dugg ci biir parti bi liggéey ci biir parti bi parce que mënuñu créer mouvement saa yu amee mobilisation ñun mouvement mobilisé section bi mobilisé nii donc on est obligé ñun ñëpp ñu bokk ci biir parti bi mais ba ma ñëwee ci biir parti bi aussi surtout dans la section de Golf Sud ñu ma fa fekk mais samay kilifa la ñu ñoom dañoo yàgg ci parti bi mais ñëwuma rek bu buxant ak ñoom non dama ñëw topp seen ligne de mais bu ñu gisee ni man sama sama sama sama activité samay sama conviction sama gëm mais dafa mais ñoom daj si boppam ñoo ma woo ñu ne ma il faudrait que nga occuper fi poste bu ñu defee assemblée générale si la ñu def élection bureau bi ñu fal ma ma nekk secrétaire administratif. donc tey karimis yi ñu ngi dugg si biir partie bi mais dañoo fekk foofu suñuy mag suñuy mag ñu ngi fa suñuy pap ñu ngi fa ñi nga xam ne les anciens mais ñooñu dañuy tete rek dañuy encourager parce que tey Ablaye Wade day dem mais ñan la fi bay mooy ndaw yi ñëw donc ñooñu. na nañu xam ne ñun kenn ñëwul pour jël seen place mais peut-être que suñu suñu suñu kii euh, conviction ak suñu xarañte maanaam suñu bëgg-bëgg moo ëpp boo jéggi dayoo ba tax na des fois ñuy gisee karimis yi dañuy ne non ñi dañ ñëpp non ñun encore une fois nenaa la nu on n'a jamais occupé de poste mosuñu am benn poste de responsabilité ci temps Abdoulaye Wade mais bu ñuy ñëwee xoolal opposition la ñu ñëw ñu ñëw jàppale Karim Meïssa Wade waaw léegi nag suñ koy jàppalee est-ce que foofu dañuy wax ni dañu am lu ñuy uti est-ce que bi may ñëw parti bi moo a jox moyen ma ñëw non c'est pas comme ça euh, national bi. man euh, tu sais man bokkuma woon si secrétaire exécutif national danaa la ko wax tey. mais est-ce que du li nga nekk Karim. non non si woon jëluñu jëluñu ma si sax bokkuma si woon man li tax ma dugg si dafa simple. secrétariat des réseaux sociaux communication élargie bi nga xam ne na Nafi Diallo moo ko jiite moo dem ba gis ni maa ngi liggéey ci biir réseaux yi ni may lancé mu kii ko ñu woo ma copte ma ñu ne ma dama bëgg nga bokk ci biir bi mais sama tur doo ko gis mukk foofu noonu parce que lan la c'est communication élargie ci la yaatal ma bokk ci ci la sama xarit bi muy Fadel saanu ci la ci bokk donc affaire bi nii la demee. d'accord d'accord waaw nii laa bokkee. Ah, ah. si biir kii bi mais du tànk parce que dama nekk Karim yi non non non parce que sama sama liggéey si biir réseaux sociaux yi moo tax ak sama sama sama sama sama xarañte. ak sama fug li may li may dégagé. Euh, d'accord Aliou dinañ ñëw ci yombul daal man damay damay dem ba jeexoon. d'accord Aliou dinañ ñëw ci ci Guédiawaye Golf Sud. <laughs> ndax PDS moom wax dëgg yàlla Guédiawaye ñëpp xam nañ ne PDS presque mën nañoo wax ne. Euh, waxoo rapport yi ah. dana ñëw ci ci dama dana dana ñëw ci rapport yi mais PDS PDS Guédiawaye mhm. waxuma Golf Sud kese mais lan la PDS nekk tey ci ci ci ci département boobu noonu léegi dana ñëw ci loolu léegi. Euh, Alioune fi ñuy ñëw mooy. ci li nga xamante ni tey moom mooy euh, plainte bi ngeen def la ñuy dog di la ñuy ñëw. ndax plainte boobu dafa yéem ñu bari plainte bi nga xam ne moom ngeen def yéen cadre yi. ndax Mamadou Diouf man dama koy tuddee yéen ah. cadre PDS yi. ndax yéen. ndax yéen PDS man communiqué bi ñu bari bi ñu ko liiree. dañu dañu jaaxle. Mm-hmm. ndax li xew ci réew mi ni scandale mm-hmm. tojaange mm-hmm. yoo xamante ne ñëpp waxtaan wax nañ ci mais doo dégg. presque PDS yëkkati si làmmiñam bu paasee cadre yi nga xam ne ñoo dem ci plateau yi. Euh, ministre bi jëlee ay kéwal Ranérou indi ko am ñaar ñett yu si dee PDS génn ne day porte plainte ministre bi loolu yéen euh, fan ngeen ko teg. bon xam nga comme ñun euh, PDS nous sommes un parti responsable comme li ma la ko waxee gis nañu ne lii alal réew mi la. Oryx yi c'est pas le ministre en tant que tel moo ko moom mais su askan bi moo ko moom réew mi moo ko moom mi ngi mel ni nga détourné xaalis. ñun noonu lañ ko considéré maanaam ñu jël dënk la li nga xam ne mooy moomeel askan bi nga tubb si dugal sa poos loolu mooy détournement d'objectif moom la ministre de su doon su ministre est-ce que dina am possibilité boobu tey mu jël élection yi yóbbu ko fi mu koy yóbbu man mii Aliou Djiba su ma demoon tey ma ne damay bind pour recevoir ko même bu ma amoon sax terrain bu mel ni combien d'hectares duñ ma ko jox parce que il euh, y a toujours ce qu'on appelle un trafic d'influence te ministre bi loolu la def mu mu jël ko yóbbu ko fële mais PDS ne lii mënuñu ko nangu lii c'est un délit moo tax moom du Diouf en tant que intellectuel averti parce que nee naa la intellectuel la. mais xam nga dama ne. mais xam ngeen du mujj mais dama ne mu bañ a mujj fen mais quand même peuple bi askan bi xam ni nu on défend l'intérêt di pays di pays lépp li nga xam ne mooy. moom moomeelu askan bi mooy alal askan bi te ñu xam ne lii fu ñu ko jëmalee baaxul dañ koy porte plainte ñu xam ni fu mbax ne doone benn ñu décider parce que ñun xam nañu même su ma duggee si rapport yi moom moom problème boobu lay indi parce que tey cour de contrôle les corps de contrôle yi nga xam ne ñoom ñoo fi ne lu mel ni euh, depuis janvier 2020 am na la mooy mooy kii comment dirais-je OFNAC ah. ak IGE ak IGE léegi la ko tout récemment la joxe comment dirais-je rapport yi alors depuis janvier 2020 si la waa cour des comptes joxe seeni rapport au président de la république bu ñu ko ko joxee président bi lu mu si def rapport de 2016 2017 lan la si def ba tey defu si dara daf ko jël rek dugal si tiroir yi quoi donc ça veut dire que ñun même rapport yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw nii actuellement amuñu si benn espoir parce que dañoo jàpp ni président si boppam moo bëggul yoon am si suñu biir réew man loolu laa jàpp parce que mënuñu la jox. mais su bëggatoon yoon am dina fendi OFNAC. non dama ne. mais su bëggatoon yoon am dina fendi OFNAC. mais dama ne IGE c'est des c'est des c'est des admi c'est des gens assermentés c'est des c'est des comment dire des gens compétents des des yi nga xam ne seen capacité intellectuelle dafa jéggi dayoo li ñuy liggéey si réew mi di def travail de vérification maanaam di dem saytu ay yeneen établissement yeneen institution di saytu. ba def benn rapport coono googu yëpp ñu ñëw jël ko jëbbal ko président de la république muy rapport 2016 2017 2018 ba 2019 président bi ba tey waxu si lenn xam nga loolu day metti parce que tey day mel ni yow li ñu lay liggéeyloo di la entretenir si suñu alal dafa mel ni day nax saay mu mel ni nga nga nga am benn yére bu bees nga ne doo ko sol mais du am benn sens nga am xaalis nga ne doo ko dépenser du am benn sens IGE c'est comme ça c'est des gens yi nga xam ne des intellectuels des cadres ñu liggéey ñëw jox la rapport nga war kaa jëbal procureur mu def liggéeyam noonu nga jël ko nga dugal ko sa tiroir avec tout l'entretien yi nga xam ne ñun moom lañ leen defal di leen di fay suñu xaalis ne di liggéeyloo non il faut que ça s'arrête parce que tey ñu ngi si situation bu dramatique il faut que ñu sauver IGE IGE dañ ko war a naka lañ koy war a sauver mooy ñu jox ko li nga xam ne moom mooy gëddam gëddam mooy bu joxee rapport nga jëbal ko ak qui de droit cour des comptes bu mu épinglé ay kilifa fii si Sénégal bi fii si régime moom moom gouvernement mais pire encore qu'est-ce qu'elle a daf leen jox ay promotion jox leen ay grade yu gën a kawe mais tu penses que askan bi su ñu xoolee loolu dañuy xool ni xam ne est-ce que président bi bëgg na sax transparence am si biir réew mi non kenn du ko rafetlu dañu koy ñaawlu parce que mi ngi mel ni euh, genre fuite de responsabilité moom moo nekk ci suñu suñu njiitu réew mi parce que mënuñu la jox rapport pare nga teg ko ne la nga ne non doo ko kii te bee pare yaa taxaw ne nag pour ñu pour ñun la mais CREI pour ñee la. quelle hérésie loolu réew buy doxee noonu buy fonctionner noonu danga jàpp ni boobu réew réew bu normal la walla nit ku koy jiitee euh, da amul amul amul fuite de responsabilité. bu bëggul nax nasaxal benn parti bay benn parti mais euh, Macky kan la fi jàpp tey si nguuram tey mu ne jàpp naa la tëj la Ablaye Wade si boppam bu mu nekkee guur lu mu lu mu bon a bon mais am na ñi nga xam ne rapport euh, Cour de compte ak euh, nu mu tudd IGE épinglé na leen mu jàpp leen dugal leen si kaso bi ñu mel ni ñoom la wan ñu mel ni ñoom Modibo ñoom c'est des gens yi nga xam ne. fii lañ newoon sénégalais yëpp gis nañ ko teg na bët mais Macky wax ma depuis bu mu jëlee réew mi ba léegi kan la fi mus a jox dossier am euh, euh, procureur pour mu pour mu saytu ko même Aliou Sall bi si taxawee avec euh, Mayeni Jones bu mu waxee ni scandale bu amoon des dix milliards bu mu ko waxee mais qu'est-ce qui s'est passé procureur bi fii la agité wu taxaw def conférence de presse appel à témoin la def mais pourtant problème Karim Wade Karim Meïssa Wade defuñu loolu dañoo ñëw jàpp Karim war tëj ko ci biir kaso bi ba pare di recherche ay preuve te preuve yooyu ba tey ba suba muy muy Singapour muy feneen kenn gisu ko waaw léegi nag tey da nga da ngay jàpp sénégalais ay dox parce que gis nga booy wax ak nit ñi da leen wax wax ju am solo bu jox ju mais waxi kasaw kasaw bu ñu leen ko waxee ñoom seen bopp dañuy dëgg li ngay wax nii rapport yi ngay wax nii tey euh, borom xam-xam yëpp nangu nañ ne euh, inspection général d'État mënoon nañ koo génne ah euh, ci loxool ci biir présidence mais ce sont les propositions yi nga xam ne mais yéen yéen yéen a ko bàyyi woon présidence man moom laay wax nii ma beneen bi non beneen bi beneen mhm. xam nga euh, tudd nga fi Modibo Diop tudd nga fi mhm. Baylawan. mais ñaata rapport yu ARMP. yu mhm. Cour de comptes yu inspection générale d'État. ñoo fi jàpp ay jegeñaale Ablaye Wade yoo xamante ni mujjul fenn. waaw dëggoo ma ma wax la ma ne Ablaye Wade Ablaye Wade du ko Macky Sall Ablaye Wade il a fait ce qu'il a à te ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ leen si rapport yi Ablaye Wade jëbbal na ko yoon xëy na ñu defuñu dara moo tax ils sont pas inquiétés Ablaye Wade wat pas né de la dernière pluie. mais li nga xam ne moo ne fang te ñëpp di ko gis Macky Sall bu muy ñëw lan la wax gestion sobre et vertueuse rupture mais contrat de rupture boobu nga foog ne daf ko respecte li mu waxoon yëpp dafa ko parce que nit bu ñu lay jàppee dañu lay jàppee également si sa kàddu li waxoon lii defoo lii est-ce que li mu waxoon ba tey Macky def na ko tey li ñu gën a considérer c'est la c'est le parti avant la patrie parce que tey boo jëlee nit yi sa waa camp leen di protéger ngay jël ñeneen yi di leen di dóor mais kooku da ngay indi benn injustice ci diggante sénégalais te loolu du sa du sa cër parce que président de la république c'est une institution moo tax tey problème de la justice day daal di posé wu. parce que su ñuy jàngale tey par exemple les textes ou dans les classes lan la ñuy wax le pouvoir exécutif le pouvoir euh, judiciaire est euh, indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif maanaam pouvoir judiciaire maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo yore Euh, mbirum mbirum mbirum mbirum yoon ak ñi nga xam ne ñoo yoree mbirum assemblée ak ñi nga xam ne ñoom ñooy dogal lu mel ni président de la république dara dara dara kiiwu leen maanaam lu euh, ñu koy waxee ci olof indépendant mm-hmm. maanaam kenn ku ne moom dafa war a demal boppam ah. moom moom boppam daal waaw narul sukkandu ci benn ex kii euh, pouvoir pour mun a doxal mais malheureusement mm-hmm. ce qui se passe mooy justice bi ci boppam ñoom ñoo ko wax avec l'UMS nee na pas certains des juges ne sont pas euh, indépendants. parce que lépp lu ñu leen defloo am na ñi nga xam ne dañ leen di defloo ñu def am na ñi nga xam ne aussi am nañ seen fulla am nañ seen jom ñooñu fit la ñuy doxee bu ñu leen waxee lii dañ dañuy bañ parce que tey boo xoolee bu baax tey Malick euh, Malick euh, mooy le Malick Sall. Uh-huh. bu demee ba taxaw ne day. dàq waaw day dàq greffier yi mais ban. waaye ban yoon moo ko may mu ne day dàq ñooñu parce que ñoom dañuy réclamer seen droit te le droit de syndiquer est un droit pour tout un travailleur parce que loolu lañ lay jëkk jàngal boo nekkee di di d'accord euh, Aliou Djiba euh, peut-être euh, ñi nga xamante ni rapport yi joxar bi na leen baaraamu tuuma muy corps de contrôle yooyu rapport yi ba léegi nii ma ngi fi amaana bu bu dee kenn waxu leen dara ci euh, nguuru Macky Sall beneen euh, nguur man na fi ñëw mais fan yi jàll dañu dégg président Macky sàll daal di jox benn app ñi nga xamante ne ñooy ministre yi ak ñi war a def déclaration patrimoine wax seen wax seen moomeel euh, loolu yow lan moo ci sa xalaat. waaw bon balaa balaa balaa muy ne ñooñu ñu def déclaration man li ma gën a bind naa ko si sama page Facebook ma ne ko ma ne man damaa waaru si liy xew si sama réew parce que mënuma comprendre président la république. ñu attribuer ko autant de maison que possible man mii nga xam ne maa ngi nii di door di liggéey mënuma am sax benn sagaru kër mais xam nga ça pose problème sénégalais buñ ko dëggee yow nga am combien de maison alors que yaa combien de maison combien de véhicules nga nangu ni ñooñu si ay don nga ko amee ak si ay say say say say xarit wala yu demee noonu mais mais nangul tamit nii Karim sa wat war nañ ko mën a may Pape Bayo mën war na ko mën a may dara parce que CREI yi ministre yi wax def déclaration patrimoine non ministre yi def déclaration bi non mais waxuma la dama ne balaa ñooñu di def seen déclaration moom Macky Sall na njëkk si moom parce que première déclaration bi c'était vraiment euh, man ça trop la tête ba léegi loolu laa wax si sama page dama ne loolu saama me trotte la tête parce que mënuma gëm un président mu am autant de biens que possible surtout si suñu réew bu mel ni Sénégal te Macky Sall ñëpp xam nañu jaar jaaroom ak fu mu jaar ak Ablaye Wade ak fu ko Ablaye Wade jëlee donc mënuma comprendre combien de maison nga am ko combien de véhicules et même appartement à aux États-Unis mais loolu sëñ bi c'est dafa dafa dafa dafa doy waar alors que peuple bi xoolal na ñu mel peuple bi tey dañoo sonn sëñ bi balaa nga koy xam si élémentaire yi ngay gis ay nit ñu daan ñëw dina binduma binduma binduma malgré li ngay bind mais da ngay gis nit ñi dañuy ñëw nga gis kër yi rafet yi kër yi truc mais ñooñu yëpp se mu à ça ñu ñëw ne la bind la Dakar bul gis ni kër yi les gens sont aussi ah mais le traitement qu'on a fait pour le Covid comme ni ma ko waxee dans le milieu urbain et le milieu rural mënul bokk. te foofu erreur la gouvernement bi def. mais, mais, mais déclaration de patrimoine encore pour revenir là-dessus. Ah, ah. le président en premier comme sama suñu suñu président Doudou ni mu ko waxee moo war a njëkk def euh, déclaration de patrimoine am balaa muy laaj euh, ministre am euh, di ko def. d'accord dañoo gis fan yi appartement yi Bibo Bourgi. Euh, ñu wax ne euh, dañu koy jaay te Bibo Bourgi ñu bari euh, njortoon ne prête noo la ki nga xam ne moom mooy moom mooy Karim Wade lan moo ci sa xalaat ci loolu. bon xam nga yabaate weesuwul ni ñuy taxaw fee di ne Karim Wade moom moom appartement Bibo Bibo wax na ko problème bi réglé wu na CREI yi la taxaw ne man maa moom Karim ne man moomu ma waa en quoi un texte bi nga xam ne un acte notarié. bi nga xam ne c'est écrit noir sur blanc biibo boo moom moom ñu bëgg jàpp ni loolu mënul nekk c'est pas possible moi je y un problème dans ce pays si on ne croit plus au texte lan la ñu war a mën a gëm kon dafay mel ni lu luwaay yëpp dañ koy jël teg fee non mënul nekk te Bibo Bourgi ku ko xam sa famille était une famille riche c'est une famille riche ñëpp xam nañ ko de 1940 seen famille ñoo yoree presque alaw alal ñoo ñoo fi gën a riche si si Sénégal bi mais ñoo ñooñu ñu si bëri daan nañ ne sax ñoo daan dimbali waa parti socialiste waa UPS à du temps de Senghor waa yow kooku nga ñëw bëgg ko méngé kooku bu muy am milliard boobu Karim daa judd Karim juddul quand même il faut pas que est-ce que c'est un yi nga am un une nga lii une amitié avec quelqu'un ki nga xam ne milliardaire la yow tey man ma nekkoon milliardaire nga nekk sama xarit kon xanaa yow li ma moom yaa ko moom non mu c'est si si insensé buy boo wax na ko moo tax le tribunal arbitral bi nga xam ne moom moo décidé nee na alal bi nuñ ko maanaam euh, créé nu mu defee dogal bi c'est un arrêt illicite maanaam jaarul yoon te dañoo wax Sénégal na fay ay ndàmpaay l'autre là nu mu tudd Bibo Bourgi léegi nag li may wax si loolu mooy ñu ngi ne dañ koy jéem a jaay fii ba le 28 xaw ma lan le vingt la ñuy def visite des lieux xam nga le 28 ñu kii ko waaw nañu dem defi visite des lieux mais nag on avertit parce que képp ki nga xam ne yow dem nga ba jënd lu mel noonu mais da ngay sonal sa bopp parce que di nga euh, benn euh, ma ne di ma ne ko xaw ma jamono dina ñëw di nga di nga <laughs> dina dina la rëccu parce que di nga jaabante diggante sa kër ak tribunal te là ce serait difficile te lu si mënta am yow yaa koy as parce que non seulement tu ton argent sa xaalis di nga ko sa alal di ko perte mais également sa temps di ko perte parce que yow kese yaa koy assumer donc loolu alerte la bi nga xam ne moom la ñuy def si un acquéreur ki nga xam ne bëgg na ñëw jënd ki bi mu xam ni bien bi c'est pour Bibo Bourgi te loolu la tribunal euh, nu mu tudd international euh, de de l'ONU wax mais mais euh, Alioune Djiba ki nga xam ne nag moom nga wax sànq bi ñu commencé waxtaan wi Karim Wade ne moom mooy yéen euh, seen candidat moom lan lay def fa mu nekk du Dubaï ak lan moo ko fa téye ak tey par exemple tey. Karim ay yooni yooni yoon ay jege ñaaleem ay jege ñaaleem ñu ko jege trop wax nañ ne Karim Wade euh, dafay dafay dafay ñëw Sénégal yooyu yépp amul est-ce que loolu politiquement du am dara loo xamante ni euh, est-ce que du am lu muy yàq ci Karim Wade rawatina kàddoom. non xam nga comme ni ma la ko wax gëm-gëm. nit ku nekk dafa différent Karim son silence communication la si man wax yàgg naa ko wax nit ñi ma ne ko mu ñëw mu bañ a ñëw du tey ñun ñu gëm Karim Meïssa Wade parce que ñun moom lañ fi nekkal tey si parti bi li ñuy xeex yëpp c'est pour Karim Wade du keneen bu nekkoon keneen ñun dem nañ suñu yoon. Karim Wade wala parti bi. non dama ne Karim Wade moo porté aujourd'hui tey ñun bu ñuy porté tey si suñu choix surtout man par exemple en tant que karimiste en tant que président du Karim Wade la ñuy porter suñu choix du keneen bu doon day am keneen aussi ñu xam tamit yan tànk lañ si taxaw tey parti bi laa lay wax ni unanimement Karim Wade moo fa ne amul keneen suñu gëm-gëm nag mënuñu ko discuter kenn parce que gëm-gëm gëm-gëm la doon. donc li nga xam ne moom mooy silence am au niveau de dowaa mi ngi def li muy def ah. ñu nit ñu ngi def li ñuy def mais du ñu tegg suñu tànk benn. mais est-ce que yaa ngi am euh, euh, comme li ma lay wax rek gëñ naa am nouvelle waaw gëj naa am nu homme ça fait presque un an gëj naa am nu homme mais loolu yàqul dara sama diggante ak moom tu sais pourquoi euh, pourtant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm, mooy le prophète mosuñu koo gis mais on a cru en lui di ko gëm. léegi foo ko teg. non non man fi ma ko teg man. Ah. mooy ni Karim li mu liggéeyal Sénégal jàpp naa ni li bàyyoom def ci Sénégal Karim mën na def lu ko raw. te bàyyam bu muy ñëw âge bu mu ñëw ak li mu liggéey ñëpp gis nañ ko kon balaa ñuy rëccu si élément bi ñu am nii muy Karim Meïssa Wade balaa ñu koy rëccu nañ ko jéem a jël bu muy nekk ndaw si sinon suba danañu toog et comme paa bi duñ koy waxee góor gi yéex nañ ko jot loolu lañuy waxaat si Karim te loolu bëgguma mu dal ñu moo tax ñi ko gën a soxla réew yi ko gën a soxla ñu ngi koy xëccoo lu mel ni Dawa buñ koy génnee fii gis nga fu mu dem dawaa ba tey mi ngi liggéey foofu. jërëjëf euh, Alioune Djiba ñu fàttali yéen a ngi déglu réew mi FM. yow nga bokk ci euh, cadre euh, PDS yi nekk responsable PDS Golf Sud waxtaan wi léegi tey mu jeex Alioune yow politiquement. Alioune foo toj ci Géejawaay ak Golf Sud réellement Aliou. Hmm. dañu bëgg nga ne ñu ndax créé nga fa base politique boo xam ne tey. Hmm. élection locale bu ñëwoon PDS man na ko gagné. Euh, euh, merci question bi am na solo lool euh, bi may li ma toj géejuwaay man Golf Sud laa nekkoon fa laa fa laa nekk actuellement nee naa la li tax ma gën a créer mouvement bi mooy bu ñu jàppee Karim laa ko laa ko créer mais ba ma ko créer ma nekk la première personne à Golf Sud ki nga xam ne moo fa taxawal mouvement de soutien. ba Karim Wade ñële ñu siy ñëw yëpp kuy présenter si man ngay jaar ma wax la fooy jaar nga créé parce que ñoom it dañoo amoon gëm-gëm ni man te bëgg nañu Karim comme ni ma ko bëggee peut lu ko raw sax d'ailleurs alors ba may lancé sama mouvement bi dama invité la parti si golf bi les responsables du parti ma invité leen par des cartes d'invitation ñoom it ñu ñëw suñu boobu temps suñu présent euh, section bi muy Abdou Ndiaye moo moo moo moo moo moo moo kii woon présider woon euh, kii bi meeting bi ma def meeting bu am solo te du benn meeting def naa fa ay panel def naa fa keroog bu ñu def assemblée général bi keroog wax dëgg yàlla sama xarit bi du ma bàyyi waa section bi duñu ma bàyyi ma fen ñaari kaar la ñu feesal pour dem monter section bi ba ñu gagné jour boobu noonu keroog mobilisation forte laa defoon donc bu amee mobilisation si ñun partie bi dañ may woo walla section bi ñu mobiliser ànd ak ñoom ak waa section bi yëpp léegi yëpp benn la c'est la section au nom de la section dañuy wax lu ñuy wax au nom du mouvement donc tey loolu moo tax ma dugg ci biir partie bi donc man loolu maa ngi koy gërëm sama membre ci ci militant yi la bokk mooy suñu secteur général di administratif du mouvement moom moo ko moo ko géré mooy Fadel Sano am na ñeneen dama daan dem tournée di dem ay kolla di dem ay Bignona. mais mais au niveau hmm? de commune Golf Sud. waaw Golf Sud moom euh, maa ngi liggéey liggéey bu am solo si euh, sama euh, quartier bu ñu ne Cité Fadia. xam nga Golf Sud y a des responsables du parti et quartier bu nekk am nañ fa un responsable à la base te si sama quartier man li ma xam mooy maa ngi def foofu ay actions yu important surtout si sama côté ASC may jënd ay mayo ay ballon di ko may sama ASC si Covid bi action yu ma def dama di ma bay ma fenn ñu may dëgg te dinañ ko déglu tey euh, def naa fay action di jënd ay omo jënd saabu euh, def ko dans la plus grande discrétion jël ko yóbbu ko si kër yi lu am ma may si social may euvre bu amee dara li nga xam ne mooy. parti bi la ko jox. Euh, non man loolu sama sama moyen bopp la parce que aussi. Euh, Karim tamit jàppale wu la day jàppale léegi. non non man man euh, Karim jàppale yeneen mouvement yi bañ a jàppale sama mouvement man gisuma si benn problème pour man dama ne lu jot rek yomb parce que adduna ñu ne booy xaw ma ñu koy booy kii ñu ne baag fekk la lañ koy waxee sax. boo yàggee si den baag fekk la fa ah. donc man loolu laa gëm gëm naa ni tôt ou tard Karim Wade gis na li may def xam na li may def te gëm na ni kii ku ma gëm la xam na ni kii ku ma sopp la donc loolu kenn du ko ah, werante te Karim si euh, yëpp duñ ko werante euh, parti bi duñ ko werante te di remercier également suñu frère Mayoro Faye di ko ñaanal wér ak gudd fan parce que gannaaw moom moo tax ma tey da teew fi te di ko remercier parce que moom mooy l'homme de Ndar ah. tey parti bi tey moo représenté Ndar au niveau de au niveau de euh, voilà comme voilà moo moo ñu représenté au niveau de Saint-Louis donc di ko jaajëfal bu baax di ko remercier di remercier les membres des réseaux sociaux élargis di remercier ñoom Nafi Diallo remercier tout le monde di jaajëfal ñëpp quoi vraiment ak sama responsable politique yu nekk Golf Sud ñoom Ngouda Dione Adama Fall et tout le monde jaajëf di la remercier yow it parce que macha allah amoo morom ba ma ñëwee gis naa dalal bi yal na la yàlla may defa eh, jàmm te may la gudd fan eh, defal la xéewal tabaski bi di ñëw ñu fekkee ko jàmm eh, fekkee déwén yu bëree bëri si barkanante bi salaalaahu wa salaam jërëjëf Aline Djiba mbokk yi moom la ñu invité woon tey moom mu bokk ci parti bi di PDS bokk ci cadre yi ba tamit yor bokk si kuréel gi nga xamante ni ñoo yor lépp lu jëm ci wàllum réseaux sociaux yi ak wàllum communication interne du PDS euh, moom la ñu invité woon tey di ko bu baax a baax di jaajëfal mbooleem mbokk yi ñu doon déglu Abdou Khadre moo nekkoon ci kàddu gi seen émission pencum réew mi la woon mooy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu technique bi jërë jëf jàmm ak